أو مرتد بعد إيمان أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور ليس يفنى شيء من هذا أبدا summa yabcasu allahu alxalqa cala maa maatuu calayhi yowma alqiyaama fayuxaasibuhum bima shaaa fariqun fi ljannati wa fariqun fi lsaciir ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا والايمان بالقصاص يوم القيامه بين الخلق كلهم بني ادم والسباع والهوام حتى للذره من الذره حتى ياخذ الله لبعضهم من بعض لاهل الجنه من اهل النار واهل النار من اهل الجنه واهل الجنه بعضهم من بعض واهل النار بعضهم من بعض وإخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها قد علم الله ما العباد عاملون والى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الارضين ولا في السماوات الا ما علم الله عز وجل وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ولا خالق مع الله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 دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث زان بعد إحصان أو مرتد بعد إيمان أو قتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل به وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة nee na wala yaxillu du dagan damu mri'in muslimin dereti ab jullit tuur dereti ab jullit daganul jullit mooy koo xam ne yashhadu an laa ilaha illa allah mooy koy wax ashhadu an laa ilaha illa allah ويشهد أن محمدا عبده ورسوله di seede ne Muhammad alayhi salaatu wasalaam jaamu bi yàlla la ab yonentam la ki xas seede ñaari seede yooyu ab jullit la kooku deretam daganatul alalam daganatul shahaada boobu nag lu ñuy wax ci làmmiñ la di ko dégg ci képp koo xam ne ku ko man la képp koo xam ne ku mën a wax ci aw làmmiñam la bu dee ko tëlee wax bu defee lu koy tegtale ba tey ñi nangul ko ko ndax nit ki mën naa tëlee wax ñu mën koo liyaar mu mën di junj di nangu ñu xam ne mi ngi d'accord mi ngi d'accord ba ñu xam ne donc d'accord na ci loolu su ko defee suñ ko xoolee gis ko muy def li jullit yi def loola dana gën a confirmer ne moom nangu na shahaadatayn deret ji day ñoŋ ci tudd gim tudd ñaari baat yooyu la ne ca gannaaw loola nag muy xol ba lu fa nekk ndax dëggu na ak dëgguwut loola yoonu yoonu nit ñi nekku ci loolu digganteem ak borom bi la loolu moo tax yëngut rekk ci ne damum ri in muslimin dereti ab jullit waaye daf ne jullit buy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu su fekkoon ne daf ne jullit boo xam ne dafa fas nangam ak nangam ak nangam kon day jaadu ñi gëstu pas-pasi nit ñi ba xam fas nañ ko wala déet waaye loolu nit xam-xamam ak man-manam àggu ca lim mën a seede mooy lu muy dégg wala lu muy gis ki ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa ñu gis ko muy julli di woor di def julli di def dañ koy seedeel ne kii muslim la kooku deretam day ñoŋ alalam ñoŋ kenn sañatu koo jalgati illa bi ihda salaasin lu dul ñetti mbir yi ñetti yi mooy tax deretam jooj yi eh, mënees koo tuur zaanin baada ixsaan koo xam ne dafa njaaloo gannaaw boo xamee ne sangewu na sangewu mooy mu masa takk jabar maanaam ñi may ko jabar ba jébbal ko ko ci li ñu tudde ad duxul shar'i lenn ci waroom xam-xam yi nee na buñ ko xasee fas rek muxsan lañ koy jàppe waaye nag li gën a wér mooy fasu kese gi doyut waaye suñ ko fasee ba noppi jébbal ko ko moo xam biñ ko ko jébbalee na ndax sëy am na wala amut du tee moxsan dañ koy jàppe kooku su demoon ba yoratul jabar su njaaloo it ab atteem mooy rey koy dugal ci pax sànni ko ay xeer ba mu faatu ñu suul ko kon loolu mooy benn bi aw murtaddin wala ku tubbi baada iman gannaaw boo xamee ne gëmoon na maanaam déclaré woon na ngëmam ñëwoon na ci julli diine ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah gannaaw bi mu génn ci lislaam moo xam daa wax lu ko ci génne wala daa def lu ko ci génne kooku ab atte mooy lan rey jaasi sharia moo koy rey aw qatli nafsin mu'mina wala rey bakkan bu gëm yàlla maanaam bakkanub jullit bi gayri xaqin ci lu dul dëgg rey bakkan ci lu dul dëgg ci luy dëgg mooy lan mooy yett yi muy wax rek ku njaaloo gannaaw boo xamee ne sangewu na ku tubbi gannaaw boo xamee ne duggoon na ci lislaam ji wala ku rey bakkan te fekk tegoo ko ci yoon mas damaa dégg ku naan cib rajo mu naan àtteeb sharia bi nga xam ne ku rey ñu rey la suñ ko toppee kon nit ñépp jeex ndax su kii reyee nit kooku ñëw rey ko kooku itam kon dañ ko war a rey su ko defee ka ko rey dañ ko war a rey ka ko rey ñu rey ko ko rey bu yàggee nit ñi jeex loolu mooy ñàkk xam li ngay wax maanaam sharia bi mu attee ba ñuy rey nit kiñ sant muy tanfiis xanaa mooy exécuté rey googu kooku reyul reyul bañ koy rey waaye sharia mooy rey booba maanaam jaasi sharia su boobaa moo rey waaye nit reyul moo tax boo demee ci réew yi nga xam ne ñooy appliqué loolu ñi nga xam ne suñ attee ba war a rey wala ñu war a dagg loxo boo demoon Arabie Saoudite tey équipe bi nga xam ne ñoom loolu mooy seen liggéey pour nga xam fuñ dëkk sax du yomb te ñenn ñu nekk fañ koy defee bokkut fa ñuy jóge ca aéroport ba lay wàcce ñu indi ko mu dikk fekk yépp yekk mu def li muy def ñu yóbbuwaat ko aéroport mu dem fa mu jóge woon waaye duñ ne moom kat roq bi la dëkk ci waa Madina ñu indi ko fii mu ñu ko rey fii la dëkk doo xam fu mu dëkk noonu lay dikkee kaalaam rek ak bu dikkee def li muy def du nuyoo du gees du def lan daal di delluwaat fa mu jóge woon moo tax kooka réyul kenn waaye sharia a ko rey kenn xamut ko mu nu mu tudd nu mu sant kuy baayam kuy ndeyam quartier ban la dëkk kenn xamu noonu la ko lislaam tere nee na bi xëyri xaqin fa yuqtalu ñi koy rey bii ci moom wa ma siwa dalika lu dul loolu lu dul yett yi fa damul muslimi dereti jullit xaraamun lu araam la alal muslimi ci ab jullit abadan faaw ndax dafa damul muslimi alal muslimi xaraamun abadan xatta taquuma saaca ba keru yowmal qiyaam di ñëw xatta jooji nekkul gaaya boo xam ne dañ naan dafa xaraam ba xatta taquuma saaca bu saaca ñëwee su boobaa dootu xaraam déedéet jubluwuñ ci loolu maanaam lim ci jub rek mooy ba faaw. ba faww dereti jullit dafay arab ci jullit ba faww daganul ngay tuur dereti ab jullit mukk ci gépp genn anam ci anam yi lu dul su fekkee day jullit boo xam ne sharia moo ko rey ñu rey loola ko su boobaa danga koy rey yett yooyu nag moo koy waral atte yi nag lu ne nga ciy dégg nag ci xeltukat yi nga xam ne ñoom seeni xel lañuy yor boo waxee ku bi ñu rey la ñu ne ah, loolu moom àndut ak liberté expression nit ki bu fekkee dafa libre daa war a wax lu ko soob daa war a def lu ko soob déedéet loolu amut sharia sharia moom nit muy wax lu leen soob amu ci xanaa ci la ngeen tër yéen yéen a xam te la ngeen tër sax li ngeen naan lu la soob wax am na fu ngeen koy yemale loo xam ne boo ko waxee ngi jël si la yóbbu lii al imaam al barbahaari wax mi ngi ci jublu xadiisu abdullah ibnu mas'ud ci buxaari ak muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne laa yaxillu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah illa bi ixda salaasin assayi bizzaani wannafsi binnafs wattaariki li diinihi almufaariqi liljamaa noonu la ko xadis ba waxee mooy mooy loolu rek bi loolu weesee al imaam al barbahaari mu ne wa kullu cheyin mimma awjaba allahu alayhi alfala yafna wa kullu cheyin lépp mimma ci li nga xam ne awjaba waral na allahu yàlla alayhi ci moom alfanaa jeex ga yafna dana jeex lépp loo xam ne sunu borom tabaraka wa taala dogal na ne day jeex xamal ne loola day jeex bu la neexee nga ne li ngay teg bët lépp yow day jeex lépp looy teg bët day jeex lépp lu nekk ci kaw suuf day jeex kullu man alayha faan lépp lu nekk ci kaw suuf day jeex am nag yu dul jeex nee na illa al janna lu dul aj jana du jeex wan naar sawara du jeex wal arsh ak gàngu nekk sunu borom tabaraka wa taala ja wal kursi ak toogu ba ab toogu lañ ko mën a tudde waaye waxuñu ne suñu borom tabaraka da cay toog de a ab bu moom la toogu boo xam ne suñu boroom ko moom ni moomi jant bi ak weer wi ñu bari nag dañoo jàpp ne bu ñu ne lii toogub yàlla ñu yàlla da cay toog kenn waxula ko te yàlla waxul ne day toog ci nangam wal lawx ak alluwa ja ñuy binde dogal yi wal qalam ak xalima ga koy bind wa suwar ak ruux ya suwar dem ci jublu foofu ruux la ci waxiinu mag ñu yàgg ña ñaare suñ tuddee suura wala suwar lañ ci jublu mooy al arwaax mu ne yéemu lim laysa yaf naa déet muy jeex shay'un dara min haada ci lii abada faw yii amu ci luy jeex danañ ci dellusiwaat nee na summa yabasu llahu su ko defee yàlla dekkal alxalqa bindeef ya ala ma maatu alayhi yowma alqiyaama su ko defee yowma alqiyaama kenn ku ne dalay dekkal ci la nga faatu xadis boobu ñëw na ci saxiix muslim xadisu jaabir yubaasu kullu abdin ala ma maata alayhi yubaasu kullu abdin ala ma maata jaam bu nekk la na nga faatoo noona ngay dekkee da nga gis ku nekk cib géew di fecc ko way ba mu yàgg mu daanu faatu wala yaasu billah noona lay dekkee keneen a ngi koo xam ne daa sujjóot di julli siggiwut teggee fa faatu noona lay dekkee keneen toog fi béréb di julli wala muy ñaan di ñaan di ñaan ba mu yàgg mu teggee ko mujj gu rafet la waaye kay fecc ka way di taaxuraan ba mu yàgg mu daanu ca géew ba ñu naan andi leen ndox mi ñuy xëppam ndox mu faatu hmm? rafetut de kenn bëggalu ko sa bopp kenn bëggalu ko sa mbokk yubaasu kullu abdin ala ma maata alayhi nee na fa yuxaasibuhum yàlla di leen reg regleente ak ñoom bi ma shaa ca la ko soob maanaam kenn ku nekk la nga doon def ñu regle ko xool sa jëf yu baax yañ bind ca téere bu baax ba lu fa nekk téere bañ bind i jëf yañ bind ca téere safaan ba lu fa nekk ñu comparé yaar yooyu ba xam lu ca ëpp nee na fariqun ak kuréel fil janna ca ajjana wa fariqun beneen kuréel fi sair ca sawara waliyaasu billah wa yaquulu muy wax moom sunu borom tabaraka wa taala bu boobaa li saairi lxalq ñeel bindeef ya ca des bindeef ya ca des léeg-léeg saairi am ñu koy fire mboolem waaye firiwut loolu buñ jëlee lii la ca des loolu lañ naan saa iruhum jalasal qawm wa saa iruhum qaaimuun nit ñi toog nañ waaye ña ca des dañoo taxaw waaye bool ne ñëpp dañoo taxaw su yaa ngi tooñ ña toog summa wa yaqulu li saairi alxalq mu wax bindeef ya ca des min man ci ña nga xam ne lam yuxlaq bindeefu leen lil baqaa'i ña nga xam ne bindee su leen woon ngir ñu des fi ñu ne leen koonu turaaban nekk leen suuf mala yaag jamaadaat yaag ya nga xam ne amuñu ruux ak ya am ruux ba noppi amuñum xel nga xam nekkuñu mu kàllaf te yàlla bind na leen yooyu yépp yàlla dinaa leen nekk leen suuf ñu leen nekk suuf moo tax yéefar yi nga xam ne dañoo xool gis la leen di xaar muy sa warawu tàng di birax ñu gis xar yaag bëy yaag nag yaag yooyu yépp ñu ne leen kunu turaaban ñu daal di doon suuf yéefar ba danaan yaa laytani kuntu turaaba wa yaqulu alkaafiru yaa laytani kuntu turaba ak a neexoon ma nekk suuf comme ñii waaye mënoo koo nekk munoo koo nekk layu diine layu yàlla da laa dikkaloo ñi la kaay gëm nga lànk yor sam xel yor sa lépp di cëpp cëppi ci kaw suuf si ba dekki nga nag tey li fi sës mooy sa war leneen amatut yaa laytani kuntu turaba doo njariñ kon yi nga xam ne dañ fiy des waroom xam-xam yi tudd nañ ko muy juróom-ñett al imaamu nawawi wax na ko ci yaari bayit daanaka wenn bayit wa sax ci la ko tudd waaye daf ne samaniyatun xukmu lbaqaai yaummuha samaniyatun xukmu lbaqaai yaummuha min alxalqi walbaaquuna fi xayisi aladam min alxalqi walbaaquuna fi xayizi adam ne la samaaniyatun juróom-ñett xukmul baqaa'i ak teb des fi bañ a jeex ba faw yaummuhaa matale na ko maanaam làmboo na ko ba mat sëkk min alxalqi ci bindeef yi nga xam ne yàlla leen bind walbaaquuna ña ca des ñett nag fi xayizil adam ñi ci des ñépp dañuy dem ba jeex tàkk loolu rek a dul jeex lan la mu ne hiya al arshu wal kur hiya al arshu wal kur kursiyu naarun wa jannatun hiya al arshu wal kursiyu naarun wa jannatun wa ujbun wa arwaaxun kada allawxu wal qalam kada allawxu walqalam nee na hiya moom al arsh mooy aras wal kursi liñ ko waxe léegi naarun sawara wa jannatun ak ajjana wa ujbun bi ñu tudde ujbu danab gannaaw boo jógee ca loos wa di wàcc day mel ne ay per ba ca mujj kooku la ñu tudde ujbu danab moom la yonente bi sallallahu alayhi wa wax ne dafa mel ne ni aw jiwu mel ci meññet nit ki buñ ko suulee léppay seey ba mu des dott bu tuuti boobu yi nga xam ne moo ci mujj ci lool yi ci la ko yàlla di dekkale maanaam day saxaar comme ni nga xam ne gàncax gu aw jiwoom nekk ci bàq di sax noonu lay saxe kooku lañ tuddee ujbu zanab moo tax ma ne wa ujbun wa arwaaxun nekk noonu ruux yi itam fi la ñuy des kada nekk noonu al lawxu alluwa ji bind dogal wal qalam ak xalim yàlla di bind yooyu moom lañu wax ne mooy yi fiy des jàlloon na ci gannaaw bi nuy wax ci àjjana ak sawara ne fi la ñuy des ndax lan xamoon nun borom bi tabaraka wa rek moo tàmbalewul fenn di yam fenn borom bi tàmbalewul fen yamul fenn ndax suñ waxee ne àjjana ak sawara ñoom itam yemuñu fenn ndax lool du kon ak nuróole diggante yooyu ak sun borom tabaraka wa ñu joxe woon ca loola tont ndax fàtte ngeen ko hmm. Hmm? Hmm. waaw maanaam sunu borom tabaraka wa taala ak desam bokk wala desug dara baqaa zaati maanaam jëmmam ci boppam loolu la baaxoo leneen lu fi des lu mën a doon nag yàlla moo la fi desal moom ci boppam yàlla mooy ki fi des te kenn desalu ko fi moom waaye keneen ku mën a doon daa soob yàlla mu desal la fi loolu moo leen wutale ak sunu borom tabaraka wa ah amul fu mu mu ngoog loolu mooy beneen bi yeneen yi ci des yépp am nañ fuñ tàmbalee waaye suñu borom wa taala amul fu mu tàmbalee loolu al muallif rahimahullah mu ne wal imaanu maanaam war na ñu gëm bil qisaasi ci fayantoo yowma alqiyaamati yowma alqiyaama bayna alxalqi kullihim mboolem bindeef ëllëg borom bi tabaraka wa taala daf leen di digal képp kuñ tooñoon nga fayu ca kala tooñ bani aadam moo xam doomi aadama yi lañ wa sibaa ak ndegment yi mooy rab yi nekk ca àll bi di fàdd di lekk wal hawaam ak yu sew sewaan yi mooy ndox suuf yeeg gunóor yeeg soccet yeeg ñu yor toogeeg ñi yorul tooge yépp ay hawaam lañ leen di tudde xatta li darrati ba ci sanqleeñ min a darrati ci sanqleeñ danañ fayuloo sax aw sanqleeñ woo xam ne weneen da koo tooñoon ñu ne ko demal fayu ci gi maandute xatta yaxuda ba muy jël allahu azza wa jal li baadihim min baad képp ku tooñoon kenn danañ la dekkal yéen ñaar ngeen bokk taxaw ñu la diw sàngam diw moo la fayu bu dee da ko dóoroon mu ne ko dóor bu dee daa jëloon alalam mu ne ko jëlal alalam loo ko defoon lu nekk rek mu fay li ahli ljannati min ahli naar waa sawara am waa ajjana am na ñoo xam ne am na ñu leen tooñ ba noppi tàbbi sawara ñooña du ñu fay leen du ñu fay leen maanaam danañ fayu wa ahlu naar min ahli ljanna am ñu tàbbe ajana fekk tooñoon nañ ku bokk ci waa sawara kooku it dana fayu kon ñéppay fay wa ahlil jannati baaduhum min baad waa ajjana danañ fayonte ñoom itam ku ci yoroon tooñaa ngay jaamur wa ahlu naar baaduhum min baad kon daal ñu nekk sawaraak ñu nekk ajjanaak kenn ki nekk sawara kenn nekk ajjana du tax nga mucc lii moo tax tooñ moom wala yaasu billahi mooy lii yées ci lu doomu adama di def ci kaw suuf ba sun borom tabaraka wa taala wax ne inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharrama mooy wane ne tooñaange baaxut li yàlla xaraamal ci boppam ba noppi door koo ci nit ñi loolu day wane ne e, jéggi na dayo lu mat a wattandiku la zulmu zulumaatun yowma alqiyaama ay lëndëm la yowma alqiyaama liñ fa soxla mooy ak ndax siraat boo xam ne daa ñawe ne ak sewe ne ak cinkóor ñawe ne jaasi wala paaka bu ñëw nga war cee jaar di dox bu ca ak lëndëm bokkee kooku waliyaasu billah musiba la ba noppi tiim jaxaam na ma ak ku ne ko tarxiis rek tàbbi nga wala nañu yàlla defal tawfiq ca bis boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ittaqi دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ñaan la koo xam ne amul kiiraay diggante kañu tooñ ak fa muy ñaane bu ñaanee rek suñ borom nangu yow mi ko tooñ fu la ñaan yàlla xamal ne ñaan yàlla ga dalay dal comme balu petal bu tàkk lay doon ci sa loolu ma ngi ko doon dénk Muaas ibnu Jabal ak abu musa al ashari ba mu leen yónnee yaman mu ne moaz na nga leen digal tawxid bu noppee nga jàngal leen julli nga jël ci seeni alal ña am alal nga jël ci seeni alal jox ko seeni fuqaraaw comme ku bunt bu nag buntub alal la te tooñ ci alal dafa tooñ dafa dafa yomb mu ne ko tegal ko ci ne ko nag ittaqi daawatal mazlum maanaam wattandiku la tooñ nit ki ci alalam ba jël lu ëpp la nga war woon a jël wala mu yor alalam nga tànn qualité ba ci gën a baax bàyyil ko fa mbellit ba joxe la baax loolu lépp xeeti tooñ la kon mu ne ko wattandikul ñaanu ku ñu tooñ ndax ki nga tooñ bu la ñaan yàlla ñaan nga amul kiiraay direct lay def ca suñu borom tabaraka wa taala waxuñu rek ñaanu ku ñuy tooñ ndax nit ñi moom léeg-léeg waxee ni wolof yi indi affaire ku jàpp ne ku ñuy tooñ mooy koo xam ne nit ñi dañuy wax ci moom seen yooyu yi ñuy wax léeg-léeg nga dégg ñu ñii ñii di ñu tooñ lañ yaakaar ne ñaanu ka ñuy wax mooy koo xam ne nañ koy waxe borom bët bu gudd la wala làmmiñ bu gudd wala feet ki nga xam ne yow yaa ko tooñ loolu la ñu kon fayantoo boobu lim lay woon mooy maadu teg sun borom tabaraka wa taala laa zulma al laa zulma al bis boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadisu saxiixayni mu ci daxalat imraatu naar fi hirra jigéen gi joo xam ne tabbina sawara ci sababus muus muus mi da ko yeew joxu ko mu lekk joxu ko mu naan ba muus mi dee yàlla tàbbal ko ci lool sawara lool ci biir kaadar bi la bokk fayantoogoo gi ci la bokk maanaam yàlla fayee ko sawara lu tax daa tooñ mala su fekkee tooñ mala day yóbbu nit sawar loolu loolu tooñ rëy na léeg-léeg nga gis mala yi ñu di leen won loo xam ne fii ci kaw suuf fas yéeg mbaam yi takk leen luñ àttanut ba pare yéeg ci kaw yor dara di dóor di dóor di dóor jàpp ne lii moom mala rekk la amut solo fekk yaa ngay def tooñ goo xam ne jéggi na dayu ña la ko bindal ci say balance ëllëg ñëw nga ne man damaa jàppoon ni ñii moom comme que ëllëg dañ naan leen rek koono turaaban nekk leen suuf ko amul problème ñu ah déet dañoo am xaq di dañoo am xaq ni nga amee xaq man mi la bind wàcce leen ci suuf maa leen bind wàcce leen ci suuf daganal la nga jariñu ci ñoom waaye na nga fonk leen nag di leen toppatoo di leen taxaw boroomi bakkan lañ bul ko yam lam attanut bul dóor bul jam ñu la mu teg ca ne wa ixlaasul amali lillah bokk na ci war mooy jëf ñu sellal ko jëf ju sel mooy joo xam ne yàlla tax nit ki li muy def bu yàlla taxut amul njariñ bu yàlla taxul amul njariñ ndax doo amul bu la ci nit ko santoon it maanaam boo toppoon nit ñi ci àdduna ñépp kenn ku nekk nga jox ko dara ñoom ñépp ñu àndandoo di la sant guddi ak bëccëg ni diw sànga mu baax amul moroom di wa tabe lu nekk ñu wax la ko ci àdduna te fekk yàlla taxut amul njariñ wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansura bu boobaa amut njariñ pënd la joxe tuuti waaye yàlla dog nga tax kooka day mën naa am yaakaar li sell loolu la yàlla di nangu moo tax li sell day am ay màndarga kiy joxe lu sell te yàlla tax da ciy continuer su ko kenn santul sax yoonam nekku ci laa nuridu minkum jazaan wala shukura bëgguma ku ma sant bëgguma ku ma fay yow nit bëgguma nga fay ma bëgguma nga sant ma waaye saa borom ki ma bind kooku laa bëgg mu fay ma wala mu sant ma kooku su la doon jox nga di ko xarab sax day continuer di la jox mu ne kii moo nay mënoon na maa jox lu ëpp lii li ko yàlla jox mu ñëw di ma jox benn téeméer boo nga jox ko ñaar téeméer mu ne doyut parce que lii mënoon na maa jox lu ko ëpp ñeneen la koy wax waaye muy agsi ci yow ngay dolli rek di lu tax mooy jëflante ak moom hmm. da ngay jëf ci moom waaye jëflante woo ak moom am na keneen koy jëflanteel kooko moom ngay xool xam ne day nangu lu bari nangu lu tuuti waaye maa ngi jox kii ba mu yàgg ma mere ko daal di fas samay loxo bàyyi rek dana dana xam maa ko doon defal bu masaan jaaxle ci man lay ñëw bu jaaxlee te dana xam fan la jëm yàlla taxut yàlla taxut moo tax jëf jëf ji ngir ñi nangu ko ak jëf ju mën a doon jaamu yàlla gi nga xam ne nit ki tuyaaba la ci bëgg ngir ñi nangu ko ñaari sart yi mënuñoo ñàkk benn bi mooy na yàlla tax moom la ñu tudde al ixlaas beneen bi bi ci des mooy muwaafaqatu sunna mu dëppoog na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam santaane melokaan wa na dëppoog melokaan wa yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ñaari sàq yooyu bu dajee boroom jëf ji mën naa am yaakaar waaye bu ci manqué nag mënatula am yaakaar ci ñu nangu ko jëf ji nag mën naa wér ci biti waaye alqabul moom leneen la pour ñu nangu ko mu teg ca ne wa rida bi qadaa illahi wa rida mooy gërëm loo bi qadaa illahi ci dogali sunu borom tabaraka wa taala nangu dogalub yàlla bokkul ak gërëm loo dogalub yàlla nangu dogalub yàlla mooy man de wax dëgg yàlla lii yàlla dogal nangu naa ko boo demee aw ma ci pexe mënuma ko bañ a nangu parce su ma ko nangu wutit xaw ma lu may def kon nangu nag waaye déedéet nag ar rida la ñu wax da nga ciy bég sa xol féex ci ni lii yàlla ko dogal bu doon lu metti lu tege ci sa kaw sax la lay bégloo mooy yow sa boroom yitte wóole yow mi diw mu doya di mii ba jël dara di ko teg ci sa kaw nga xam ne kon yow ci sa jëmmi bopp yàlla yow la jëflenteel foofu léeg-léeg nit ki dana yor maqaama moo xam ne nga nuyu ko mu jaar ci sant rek lu rëy lay doon ci yow ah diw tey dama ko nuyu mu xam ma la ahmad ibn mansour ar-ramadi waxoon ba muy nattu wala euh, ibnu mahin moo ko waxoon ba muy nattu abu nuaym alfadl ibn dukayn ay muhaddisoon yu mag lañ ibnu mahin dafa ñëw ci imam ahmad ibnu hanbal ñoom ñaar ñëpp taalibey abu nuaym lañ ibnu mahin ne ko góor gi defe naa ne tàmbali na di naag maanaam abu nuaym alfadl ibnu dukayn mu ne ko daa tàmbali di naag jële ci moom xadis bu wóoratut imaam ahmad ne ko déedéet na meloon la mel mu ne ko kon danaa ko nattu dem seeti ahmad ibn mansour ramadi kenn ci taalibe yi toog ci jataay bi jox ko lu mat juróomi xadis yoo xam ne dañoo jaxase sanat yi ak mat yi bokkut jël xadis bi jox bee jël bi jox bi ne ko bu dars bi jeexee rek laaj ko xadis yi dars bi jeex ahmad ibn mansour arrahmadi daal di ne abu naim man de yoroon naa fi ay laaj yu aju ci ay xadis mu ne ko lu mu doon fi toog nii ahmad ibn hanbal a ngi toog nii ibnu maïn toog ci wet gi mu jàng benn ba mu àgg mu ne ko boobu xaw ma ko mu jàngaat beneen ba àggal mu ne ko xaw ma ko def ko ba juróomi xadis yi jeex bi mu àggalee mu ne ko lii de jógewut ci yow anta aqallu min dalik maanaam sa mustawa yow àggut ci di dajale lu mel nii di ma ci nattu xam naa ki ko def daal di kii la ni ahmad ibnu yaxya mahin yaxya ibnu maïn lu mu wax mu ne rafsatuhu kaana ahaba ilaya min kada wa kada maanaam conco bi mu ma conco moo ma gënal lu bare bare bare daf caa kontaan dëgg la da doon natt di xool waaye nee na daf ca kontaan waaye yow njaamu si si yi nga xam ne man diw sàngam mii dul dara yàlla di séddale ya muy séddale amaana yi ay bopp yu metti la yi ay tànk yu metti yi man mu jox ma ci bët buy metti laa ilaha kooku di duma ko fàtte mukk loolu mooy ar ridaa bil qadaa wal gërëm loo gërëm loo am ca mbégte bokkut ak nga ne ah lii man dañ koo dogal mën ma ci dara sooy boo rek ma nangu ko wa sabru ak muñ ci li yàlla atte muñ wal iman bi ma qaala allah ak gëm li nga xam ne yàlla da koo wax wal imaanu bi aqdaari illahi kulliha ak gëm ne dogal yàlla ne moom mooy dogal kulliha léppam xayriha wa sharriha wa xulwiha wa murriha lu baax laak safaan baak lu neex laak lu naqari la lépp nga nangu ko muñ muñ nag ci musiba dañuy wax ne mooy xabsu nafsi an il jaza wa xabsu lisaani an il tashakki wa xabsul jawaarixi amma yucdibu allah inda sadmati al ula fexe ba dogal bi yàlla dogal mu doon bu metti doo ci tiit doo ci am njàqare danga koy nangu ba noppi gërëm loo ko comme niñ ko waxee léegi te it saw làmmiñ ba doo ko jàmbat njàmbat àndul ak muñ li tegee ci sa kaw foo toll di ko wax di ko jàmbat man di nangam ak nangam man de kër ga bàyyiwu ma fa dara man de aw ma daal yu ma sol man di nangam man kooku muñut waaye téye say cër itam ba doo def lenn loo xam ne lu naqari suñ borom tabaraka wa taala la léegi-léeg am na ñoo xam ne bu musiba wàccee ci seen kaw dañuy xotti seeni sër sox dañ cay àgg xotti say sër dóor sa bopp xëpp sa bopp suuf alquran nun fu jëm nangam nangam yooyu àndut ak muñ te nag muñ dafa war a doon loo xam ne jullit bi day préparé boppam ba ànd ak moom nga xam ne du saalit ba pare walbatiku muñ waaye yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na woon innama sabru inda ci sa kaw nga gërëm la dogalub loolu mooy muñ daa am soxna su toog ci xabru di jooy di jooy jooy yu metti ci kanam bàmmeel bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam romb ko te xamu ko xadis baa ngi ci saxiixul Buxaari ndaw si xamul ni kii yonente bee yonente bi ni ko isbiri muñal mu ko fa innaka bi ma usibtu bi li ma daal dalaa dalut moo tax nga di ma wax loolu ah alayhi salaatu wasalaam mu daal koy romb dem am ko fa jaar ne ko yow xam nga ki doon wax ak yow mu ne ko ah, kooku de yonente bee mu topp ci moom ba dugg ci kër gi fekk mu toog kii nettali xadis bi ne lam yejit ba waaban ne fekku fa sax ay bëkk néeg wala dara daa ñëw rek dugg fekk ko ci biir ne ko muñ naa mu ne ko innama sabru inda sadmatil ula muñ kat mooy ba yëfee ne xis ci sa kaw waaye doo saalit ba noppi doora wulati ko muñ kon fa mu nettee nga muñ ko loola mooy muñ bokk na ci li nga war a gëm mooy ne qad alima allahu yàlla xam na maa li nga xam ne al ibaadu jaam ya aamiluun jëf nañ ko wala danañ ko jëf lépp lu jaam ñi def yàlla xam na ko lu nëbbu ak lu feeñ lu paase ak lii ñëw lépp yàlla xam na kenn ku ne xam na li nga nar a def ci kanam nim xame la nga defoon ci li weesu xam na li nga def ci lu nëbbu comme ni mu xamee li nga def ci lu feeñ wa ila ma hum saairuun xam na it fañ jëm ëllëg kenn ku ne ka jëm àjjana xam na ni kii àjjana la jëm ka jëm ca safaan ba xam na ni kii ca safaan ba la jëm moo tax mu ne laa yaxrujoona duñ génn mukk min ilmillahi ci xam-xamub yàlla mënuñoo génn xam-xamub yàlla wala yakuunu du nekk fil aradina ca suuf ya juróom-ñaari suuf ya wala lu ko ëpp wala fi samawaati du caagini ci juróom-ñaari asmaan ya lu ko illa ma alima allah lu dul lu yàlla asamaan ak suuf lu fi xew lu yàlla xamut lu mu tuuti tuuti lu mu tuuti wa taalam ngay xam annama asaabaka ne li la dal lam yakun nekkul li yuxti aka ngir mu moy la maanaam li dal ci sa kaw mënu la woon a jàdd mënu la woon a paase li la dal mënu la woon a ñàkk dal wa annama axtaaka ne li la moy lam yakun li yusibak li la moy ba dalu la loolu mënu la woon a dal lii bu ko jaam xamee day noppul lépp lu tegee ci sa kaw moo xam lu neex la wala lu naqari mënul woon a bañ a am ndax noonu la ko yàlla dogale noonu la ko bëggee lépp loo xam ne dalul ci sa kaw kenn mënul woon a tax mu dal ci sa kaw ndax yàlla noru ko woon xaaliqa amul kuy bind ma allahi azza wa amul beneen keneen kuy bind ku dul yàlla kon moo bind lépp jëf yi nga jëf sax yàllaa ko bind lépp kooku mooy sunu borom tabaraka wa taala dogal yàlla nag niñ ko xamee ay martaba la ñu bari dañoo yaakaar ne yàlla xam na ko ak yàlla forcé na la ci ñoo bokk waaye bokkuñu yàlla forcé la ci waaye daa xam nag li ngay def yow bi ci jëkk mooy faaw nga xam dogalu suñu borom tabaraka wa taala ñaareel ba faaw nga gëm borom tabaraka wa taala ñetteel ba mooy faaw nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala lu am lu ne da nam maanaam dafa bëgg mu am beneen bi ci des lépp lu am lu ne suñ borom da koo bind loolu lenn lu ci nekk daa fees dell ak alxuraan loolu nga xam ne da ngay gëm ne suñ borom tabaraka wa xam na lépp wëlbati ko xam ne suñ borom tabaraka wa nga gëm ne bind na lépp ci lawxul maxfuus wa kulla cheyin axsaynaahu fi imaamin mubin lenn lu nekk bind nañ ko ci ab téere bu bir ma asaaba min musibatin fi l ardi wala fi anfusikum illa fi kitaab amut leen luy daal seen kaw lu rek mu ngi cib téere ci saxiixu muslim xadiis abdullah ibn amr ibn al-aas radiallahu anhuma daf ne kataba allahu maqadir alxalaaiq qabla an yaxluqa alsamawati wal ard bi xamsiina alf sana wa kaana arshuhu ala almaa yàlla bind na mboolem dogali bindeef yi lu jiitu muy bind asamaan suuf ci juróom fukki junni at cinquante mille ci ay at kon kooku mooy dogalu sunu borom tabaraka wa taala nit ki nag du mos cafkal ngëm yàlla xatta yaclama annama asaabahu lam yakun li yuxti'ahu wa ma axta'ahu lam yakun li yusibahu xam ne li la dal mënu la woon a bañ a dal li la mooy te dalu la mënu la woon a dal nit ki xam ko ci loolu ci lay mose nag dëgg dëgg dëgg cafkal ngëm yàlla parce que dootu ragal amatul fii ci kaw suuf loo xam ne mën na koo xoqatal wala mën koo tiital adduna ak li ci biiram nañ ànd di sa wala ñuy jabar walla ñuy nekk shayatinul ins wala jinne wala luñ mën a doon ci àdduna kaaraangeeg suñ borom tabaraka wa taala mënuñu koo bët lépp lu xam rek daa fekkoon ne suñ borom nar na mu am lu mu narul mu am kenn mënta tax mu am masala yi nga xam ne danañ ko jariñoo ci dars bi ba ci jëkk ann shahadat an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sababun li ismati dami wal maal ku xas seede ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sa deret ak sa alal ci nañ kenn sañatu la jël sa deret kenn sañatu sa jël sa alal loolu nag am na ñu sede wot loolu ba noppi ñu yéegal leen lu ñu tudde ilxaaq lu mel ni ahlu dimma muy ahlul kitaab ñi ci nangoo dëkk ci réewum jullit ba noppi di joxe seeni impôt wala seen galak ci niñ koy waxe su boobaa ñooñu ahlu zimma lañ leen tudde daganul ci ab jullit muy jalgati seen deret wala seen alal seen deret ak seen alal dañ koo ñoŋal ànd ak la ñoom waxuñu ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaareel ba ann almurtadda almufaariqa li diinihi xukmuhu alqatl ma lam yubaadir biltawbati qabla alqudrati alayh ki nga xam ne dafa tubbi dugg ci lislaam ba pare génn ab àtteem mooy rey lu dul dafa tuub tuub goo xam ne nag charte ba mooy moo jekki jékki gaaw tuubal boppam waaye jékkiwul bañ jàpp ko di ko bëgg a rey mu door a tuub su boobaa àttekat ya duñ nangu lool dañu xam ne daa ragal jaasi waaye tuubut moo tax qabla al qudrati lu jiitu ñu koy jekku bu ñëwee tuub dañuy nangu tuub googee diine ji forcéwul kenn mu dugg ci borom bi de laa ikraha fi diin bu la doyul toogal ci biti bul dugg waaye nag bul jaxase sun sun liggéey bul jaxase liggéeyu jullit yi dugg ci sàppe si ëllëg nga génn ëllëg nga duggaat ëllëg nga génn déedéet loolu lislaam du ko nangu wax nañ ne Haaruna Rashid wala Muawiyatu ibn Abi Sufyaan benn waaye daa ñëw ne ko man de dama bëggoon a dugg ci diine waaye dama mënta bañ naan sàngara mënuma bañ a sàcc itam ah, waaw duggal kon su ma naanee nag mun ko ñu dóor la su ma sàccee nag mu ko ñu dagg sa loxo mu dem toog xalaataat xalaat lu yàgg yàgg dikk ne ko léegi waaw dama bëgg a dugg te it bëgg a bàyyi nag naan sàngara ak sàcc mu ne ko bisimilah duggal mu dugg toog toog toog yëf yi xaw a diis mu dikk ne ko man dama bëggoon a génn mu ne ko boo génnee ñu rey la génnee ñu rey la kenn forcé wala woon waaye nag boo xalaatee ba dugg sàppe si moom dañ koy aar ku dugg dootoo génn boo génnee rek ñu rey ñetteel ba alqaatilu yuqtal maa lam yufa anhu fa yuqbalu minhu diya ki nga xam ne daa rey te tey ko dañ koy rey annafsu binnafs yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alqisaasu fi lqatla ku rey dañ lay rey alxurru bilxurri walabdu bilabdi wal unsa bil unsa lum ca teg faman ufiya lahu min axiihi shay'un fa ittibaaun bilmaarufi wa adaaun ilayhi bi ixsaan koo xam ne nag dañ koo jéggal rey na nit te tey ko ñu àtte ko ne dañ koy bëgg a rey bokki waa jañ ne nun jéggal nan ko bu ko rey su boobaa lu fa sës wa adaaun ilayhi bi ixsaan su boobaa joxe dee moo ko sës maanaam day fay moom ci boppam day fay dee moo ay bokkam fa man ufiya lahu min axiihi dañ ci jariñu ne rey nit taxut a génn lislaam ndax waaja rey ba léegi ñu ngi koy tudde mbokk mbokk googi du mbokkuk deret waaye mbokkuk diine la kon loola génnewu ko lislaam wala dalilun ala an alqaatila laa yakfuru bilqatli loolu day dàq li xawaarij yi wax ne ku def bàkkaar bu mag da ngay génn diine ji xatli ci boppam bàkkaar bu mag la waaye taxut a génn diine ji juróomeel ba an aljannata wa annaara baaqiyataan wa ahluha xaaliduuna fiha illa ma stusniya min dalik ajjana ak sawara ñi ngi fi ba faw duñ jeex lu dul lu ca yàlla settee ca loola ci alquran ñëw na ci qaala annaaru maswaakum xaalidina fiha illa ma sha allah fiha illa ma sha allah da ngeen di sawara ci ña waxal sax fa nag lu dul loo xam lu soob yàlla la waaw lu soob yàlla lool yi di tàbbi sa war a te du fa sax lu mu doon istisna boobu ci lu mu jëm mën naa dellu ci benn ci ñaari mbir yi wala mu dellu ci ñaar yépp sax benn mu dellu ci xaalidiina ji nga xam ne am na ñu fa dul sax moo ñi tàbbi sawara te yóbbaale ngëm yàlla yaxruju min annaari man kaana fi qalbihi misqaalu xabbatin min xardalin min iman noonu la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax képp ku dugg sawara te yóbbaale fa dara ci ngëm yàlla da nga génn da nga génnaat kon xaalidina fiha illa ma saa allah ñooña duñ sax ci biir duñ sax ci sawara wala sax mu dellu ci sawara ci boppam sawara am na lu yàlla settee ne dana jeex muy ban sawara naarul muwaxidiin ñi faatoo woon ngëm yàlla te tàbbi ci sawara soo xam ne fa lañ leen di lakk suñ génnee ba jeex ñépp dem àjjana sawara woowee nga xam ne fa lañ nekkoon sawara woowa day jeex ndax ak nekkaam fa amatul saas ay muwaxidoonaa fa nekkoon muwaxidoon yi génn nañ dem àjjana sawara woowa day fay yàlla du bind lu amul xikma moo tax ñaari istisna yooyu mu ci nekk mën naa delsi ci annaaru maswaakum xaalidiina fiha illa ma sha allah juróom-benneel bi adaabatu llahi taala fi ijraa alqisaas yowma alqiyaama xatta shamilat gayra almukallafina min addawaab maandu teg yàlla maandu ba képp ku tooñoon mu andi la nga fayu ba ci mala boo xam ne nit da koo tooñ loola maandu tegu doy waar la juróom-ñaareel ba ahamiyatu lixlaas wa tamassuk bi sunna wa xuturat shirk wal bidaa solo si nga xam ne sellal am na ko maanaam jëf ngir yàlla ak solo si nga xam ne jàpp ci njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ko solo su am rek dalay won danse bi nga xam ne bokkaale am na ko ndax bokkaale mooy safaanu ixlaas man amila amalan ashraka ma'i fii ghayri taraktuhu wa shirka ku jëf-jëf joo xam ne yaa ngi ci wutal keneen ab cër maanaam yàlla rek taxut waaye da ne yàlla ak diw nee na dama lay bàyyi diw moomu ba xam dana la fayam déet te du la fay diw daa bëgg ku ko fay moom ci boppam kon du fay kenn kon mu bokkaale googu noonu lu wan gannaaw njàngale mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li muy jur moom it mooy tàbbi ci biddaa kon ñaar yooyu dañuy tax jëf ji kenn du ko nangu biddaa yàlla yàlla du ko nangu ndax amul sawaab amul sawaab mooy teguwul ci na yonente bi jàngale juróom-ñetteel bi al imaanu bil qadaai wal qadari wa rida bi ahkaamillahi wa shariatihi gëm dogalu yàlla waaye gërëm loo attey sunu borom tabaraka wa taala ak shari'am bii mu wàcce nga xam ne ay waxam la ak jëfi yonentam sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñeenteel ba tey bu mujj bi saatu ilmillah wa annahu la yaatu gi nga xam ne xam-xamu sunu borom tabaraka wa taala yaatu na ko ba dara wump fu dara nekk lu nekk ak lu mu tuuti tuuti borom bi tabaraka wa taala xam na ko kon loolu la muy jëriñ jaam bi bu fekkee ne danga am borom boo xam ne dara mënu koo ump lam lay jëriñ mooy boo wéetee ak boo nekk ci biir mbooloo mi benn la ci boo wéetee ak boo nekkee ci biir mbooloo mi benn lay doon ci yow doo def mukk loo xam ne lu sa borom bëggut la ndax nam lay gisee ci biir mbooloo mi boo wéetee noonu la lay gisee te jaam bi de kersawu ci di def ci kanam boroomam loo xam ne boroomam da koy tere moo xam lu nëbb la wala lu feeñ day mel ni kon des na fukki minute ak juróom insha allah mu déglu li fi jotorot ci yeneen جزاكم الله خيرا شيخنا وتقبل منكم وجعل الدرس في ميزان حسناتكم آمين يا kii dafay laaj mu ne boroom seede bi bi muy wax nit ki ni muy def ba nekk jullit dafa ne mooy mu wax ñaari baatu seede yi mm-hmm. ne tuddul li des ci ponk lislaam yi te yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ko laajee lislaam dafa tudd juróomi ponk yépp mooy naka lañuy ñuy dëppalee waxam jooja ak xadis bi alhamdulilah dàqoonte wuñ waaye dafa tudd li nga xam ne nit ki ci lay duggee ci lislaam su nit ñëwoon tey ci yoor yoor ne man de gaañu damaa bëgg a dugg ci lislaam ñu ne ko kaay waxal ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna mu wax ko bi mu ko waxee ba noppi rek ban àtte lan koy jox jullit la wala yéefar jullit la ndax jullee gun na woor a gun na joxe gun naa asaka defagul da jullit la kon kooku bu boobaa deretam daganatut alalam daganut ci kenn su faatu woon balaa tisbaar ab jullit a faatu dañ koy defal mboolem atte yi ñu defal jullit yi te musta def nag genn jaamu yàlla gu weesu ashadu an la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah kon loolu daf lay won importance mi nga xam ne ñaari baat yooyu moom la am ci lislaam mooy bunt bi ci ngay duggee boo duggee ba ca biir nag ñu naan la koñ bee jullee fa nekk bee koñ woor a fa nekk bële koñ asaka fa nekk bee fa nekk waaye li feeg duggoo ci bunt bi yooyu amul njariñ di la koy confirmer mooy koo xam ne seede woo ashhadu an laa ilaha wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fekk julli di li woor nga de xaaral ma ñëw woor ànd ak ñoom koor gi dana am njariñ ëpp xiif rek la de ñëw ànd ak ñoom julli julli woo ñu ngi dem màkka dama caa bëgg ànd ajo ab tukki rek nga def moo tax bunt boobu yi ci la nit ki doon a jullit ci la deretam di ñoŋe waaye nag ndax ku ko def dañuy wax ne sa lislaam lépp mat na ah déet des na yeneen di bu julli jotee da ngay julli bu woor jotee nga woo bu joxe asaka jotee ta nga am alal nga joxe asaka boo amee loo aji màkk nga aji màkk ak yeneen ak yeneen nag yu bari naam jazakumullah xeyran cheikhana kii dafay laaj mu ne moom dafay faral di dégg ñuy wax ne dañuy topp alquran ak sunna ci dégginu asalafu saaleh wala ci dégginu boroom xam-xam yi mu ne lu tax ñu ciy yokk dégginu asalafu saaleh wala dégginu boroom xam-xam yi ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom dafa leeral alquran ci dégginam te alquran ak sunna képp lañu war a topp dégg ni borom xam-xam yi moom dama ci taxakus ndax boroom xam-xam yi xawma mooy ñan waaye asalafu saalix buñ ko waxee mooy saxaaba yi ak ñi yar ñooñu ngir nga dégg alquran ak sunna faaw nga xam lañ doon dund ñoom lan moo jox saxaaba yi martaba boobu mooy bi alxuraan di wàcc yàlla di digal ab yonentam mu di ko jàngale ñooñu la ko doon jàngal bi mu koy digal ñu jëfe ko ñooñu la doon jàngal ñu jëfe ko kon ñooñu lu ñu xamul ci diine ji da caa bokkut jëfin wuñ xamul jëfin woowee daa bokkul ci diine ji luñ indi lu nekkit da caa bokk looloo leen jox martaba boobu moo tax ab texte dana ñëw texte boo xam ne texte alquran la ak texte sunna boo ko jàngee yow mu dégg arab loolu mën naa lënt ci yow waaye lan moo lay dimbali nga siwaat ci ñee nuñ ko doon jëfe ñoom soo xamee nañ ko doon jëfe rek da ngay xam ne kon ndekete nii la moo tax ñooñu seenu déggin bu xel xalaat mukk ci ne mën ngaa dégg diine te jaare woo ko ci ñoom soo ko defut rek xamal seytaane ngi bëreeg yow ñiy jóg naan mën nañu liir teg si noonu rek jël ko mu doon diine jàll ñooñu ci ñi seytaane gën a mën a gaaw a galgal ñu daanu ci lañu bokk dundiinu saxaaba yi ak seenu doxiin ak seenum njàngle mooy ñag bi nga xam ne ñoo la mën a dimbali ba seytaane du la mën a dara waaye ñoo mën a tax nga dégg njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñooy taxit nga mën a dégg alquran al karim saxaaba yi martabu boobu suñ borom tabaraka wa taala moo leen ko jox tëskiyaal leen boppam ne ñii baax nañ su ngeen melee ni ñoom ëllëg gindiku ngeen bi mu ne fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw loolu lu rëy la ñii ñëw ëllëg suñ gëmee ngëm gu mel ne gaa yi ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam faqad ihtadaw kon gëndiku nañ jeex na yàllaa ko waxal boppam nee na ku sa ngëm dëppoo ngëmuk saxaaba yi gindiku nga te ñëpp gindiku lañ bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne woon wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko topp gindiku kon topp yonent bi gindiku waaye sa ngëm dëppoog nga ngëmug saxaaba yi nga gindiku lenn leen loolu moo waral aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafa irrachidin naam jazakum allahu xayran cheikhana wa zaadakum min fadli kii dafay mu ne ndax buntu melokaanu yàlla yi ak turam ndax dañ cee war a yam képp ci li ci ay texte ci alquran ak sunna wala mënees na ci góorgóorlu ndax ijtihaad yi la wala tawqif yi bu fekkee ne dolli ay melokaan la day ak i loolu moom kenn sañu ko kenn sañu ko wutal suñu borom tabaraka wa moom dong moo ko sañ ci alquran ak ci làmmiñu ab yonentam sallallahu alayhi amee lu ñu tudde ijtihaad nag wala góorgóorlu ci jéem a góorgóorlu ngir fahmu xam tur wi lu muy firi ak tur wii nan laa koy dunde mu mën maa jariñ bu tuddee boppam alxabiir nga xam ne mooy ki nga xam ne dafa dañ kumpa amul dara lu ko lu nëbbu nga xam ne loolu lay firi góor góorlu ba xam loola la ca war a tegu mooy góor góorlu ba mu jariñ la loolu ci sa dund mooy nga dem ak kat roq ba moom dëgg lum sori sori sori foofu alxabiir ma nga fa ki dara wumpul ma nga fa su ko defee wowu tur da ci daal di jariñ arrazaq wërsëgalaa kon bi nga ne ah kii kat ginnaaw wërsëg moo ko jox ku ko am ku ne su ma koy sàkku naa ko tàllal samay yoxo ñaan ko ko loolu mooy njariñ la su ko defee xam tur yi ak di ko dund bu ijtihaad amee foofu lay ayme waaye nag ijtihaad di indil yàlla ay tur yu indilul boppam ab yonentam indilu ko ko wala ay melokaan loolu moom ak la ko bu mag a mag a mag ci boobu bunt jazakumullah xeyran cheikhana ki dafay wax ne nit koo xam ni dafa dund jàpp ne moom jaamu yàlla waratu ko da koo teggeeku ci loolu la dund ba faatu mu ne kooka ndax bu faatoo mënees na koy ñaanal maanaam jaamul yàlla genn jaamu yàlla. maanaam moom dafa jàppoon ne jaamu yàlla teggeeku na ko dootu doon. ala kulli xaal dafa am jëf yoo xam ne bu ñuy àtte jëf ji noonu dama naa la déedéet kooku des ko ñaanal waaye ku mel noonu ci biir société bi jullit faaw ñu xool boroom xam-xam yi ban àtte lañ ko jox àtte boobee mooy wéy su fekkee ne ñoom ci seenu gëstu dem nañ ba xam ne waa ji daa weddi ñu takk fiir ko dañu xam ne kooku bokkul ci jullit. suñ demee wax ne ay lënt a nekk ci boppam ñu jéem ko jéem a dindi mënuñu koo dindi waaye moom jàpp na ne ab jullit la waaye am na lënt moo xam ne moo dox digganteem ak loola su boobaa ba tey mën nañoo jàpp ne kii ab jullit la su fekkee daa wéradi wéradi xel itam ci seen gëstu su boobaa mën nañu jàpp ne ba tey ab jullit la moo tax mbir moomu ak kum mën di doon ci yooyu dañoo war a gëstu ba xam lan moo tax waaye lay al aslu mooy santaane sunu borom tabaraka wa ku bàyyi yépp jumlatan wa tafsilan ànd ak sa wér-gi-yaram alquran ak sunna nekk fa nga nekk ci société boo xam ne ay julli dafa nekk maanaam nekkoo foo xam ne euh, dafa tumuranke ci lislaam nga gis julli yépp di xëy di julli di xëy di woor di joxe asaka di def lu baax te nga ne man loolu bokkuma ci kooku moom atte ba ko nit ñi jox mooy bu faatoo kenn waru ko defal li ñu defal jullit yi te ñaan ci loola la bokk naam jazakumullah xeyran cheikhana wa zaadakum min fadli kii dafay laaj mu ne ki nga xam ni daa ànd ak wéradik xel dund ci loolu ba faatu mu ne ndax yowmal qiyaam day bokk ci ñu yàlla subhanahu wa di wax nekk leen suuf nga xam ni moom fa la di yem déedéet du nit moom bu bokk ci ñi naan koonu turaabu duñ nekk leen suuf dañuy xool lan mooy cosaanam borom bi tabaraka wa day delloo mbir yi ci seeni cosaan loolu moo tax atfaalul muslimin yi faatu dañuy jàpp ne ay jullit lañ jox leen àttee jullit te màgg gu ñu woon bay wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ab xale gi boo xam ne bi muy faatu amagul un an ban àtte lañ koy jox waaye doomi jullit la dañu jàpp kii ab jullit la ndite ngi yoo xam ne ci biir jullit yi ci la juddoo dund ñaari at ñetti at dof di dund ci loolu ba am quatre-vingts ans la defal jullit yi lañ koy defal bàyyi koog boroomam nag ngoog jazakumullah xeyran cheikhana kii dafay wax ne dafay sàkku sofaan ba it noonu maanaam bu fekkoo ne ci ay yéefar la nekk di fa dund kéefar kese fa nekk ñaari waajur yoo xam ne ay lañ société boo ne ay yéefar lañ mu judd màggale la ñuy defal yéefar yi lañ koy defal waaye nag jébbal ko boroomam nag la ca gannaaw loola suñ boroom a koy xam ndax kat yonente bi alayhi salaatu wasalaam ko laajee awlaadul kufaar daf ne allahu aalamu bi ma kaanu aamiliin xam buñ màggoon lu ñuy def buñ màggoon lu ñuy def waaw waaw kii dafay laaj mu ne ndax am na yeneeni asamaan yu bokkut ak asamaanu juróom-ñaar yi ñu xam ak yeneen suuf yu bokkut ak suuf yi laa adri xaw ma. jazakumullah xeyran cheikhna kii dafay wax mu ne day sàkku ay leeral yu gën a yaatu ci jëflante bi nga xam ne war nañ ko jëflante ak mala yi ndax dafa seetlu na ñoom seen dëkk fiñ ñu dëkk ni ñuy jëflanteeg mala yi dafa tar ndax dafay dugg ci tooñ. ndax ñoom mala yi ñuy war ak. mbaam yi ñuy takk ak fas yi mm-hmm. dafa tar lool ne ndax loolu dafay dugg ci tooñ waaw oh, loolu laa wax noon ba daaneel sànq xanaa sun dëkk moom Sénégal nga ci jublu Sénégal looloo fi nekk moom Sénégal looloo mala yi moom bu dul fasu course yi indi ay million moom li muy daj ma maar day taal waaye fasu course yi nag léeg-léeg nga gis koo xam ne moom fas wi la gën a fonk ci doomam raay di diw di def sang def lu nekk ndax bu xëyee daw rek bu ñëwee indi ay million waaw hmm? ah, mu ngoog xari <laughs> Cheikh Omar nee laa doon yi nekk noonu mu ngoog tayib cheikhana kii dafay laaj mu ne hal xusnu alxaatima maanaam mujj ko rafet ndax dafay tegtale nit kooka àjjana la jëm day tax ñu mën a rafet njorti ci moom ki yor mujj gu rafet dañuy rafet ci moom njort waaye jullit yi bokkul ci seen pas-pas ahlu sunna wal jamaa ñuy dogu ne waa jii ci waa àjjana la bokk lu dul daa am texte bu ñëw ne kii àjjana la jëm lu mel ne li al asharatu al mubasharuna bil am fukk yooyu nga xam ne yonent bi moo leen bégal ne ñii àjjana lañ jëm kooku jullit bi day dogu ne ñii àjjana lañ jëm keneen ku dul kooku nag loo baax baax dañuy rafet njortu ci ne ah kii de moom yaakaar nañ lool sunu borom tabaraka wa taala tabbal ko àjjana borom bàkkaar yeeg dangay ñaaw ci moom njort waaye ginnaaw ab jullit la dangay ñaaw ci moom njort waaye doo dogu ne kii sa war a la jëm kenn sañu ko ndax sunu borom mën na ko jéggal ana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaari baat yooyu mën naa faat sunu boroom jéggal ko ak lam doon def lépp ci ay bàkkaar moo tax da ñaaw njort ngir jëf yu ñaaw yi waaye doo dogu ne sa war a la jëm kéet da rafet njort ndax jëf yu rafet yi waaye doo dogu ne àjjana la jëm naam jazaallaahu cheikhana xayral jaza xanaa ci masalatu fanaul jannati wannaar mm-hmm. muy àjjana ak safara dañuy jeex ahlu sunna dañuy saxal ne du jeex bu dee al la wala lenn ci ñoom ak jaxam yooyu ñu ne ñoom day jeex mhm. mais boo xoolee ahlu sunna seeni dalil dafa mel ni euh, taxul mu bëri lool ci texte dafa mel ni ci istiqra lañ gën a sukkandiku ak mafhum beneen biit mooy ci wax ne juróom-ñaar yi nga xam ne ñoo fiy des suñ ci génnee àjjana ak safara yiñ tudd yépp muy arsh kursi ak al ak yooyu yëpp boo ko xoolee dafa mel ni xilaaf da ci am ci biir ahlu sunna mm-hmm, mm-hmm. parce que ko demee cheikh al islam taymiya dafa mel da koy dàq mm-hmm, ak imam ibni manda di wax ne daanaka xawul am dalil bu dëgër bu koy wone ndax noonu te it bi ñu fàttaliku bi ñuy jàng sharh sunna bi ñu koy jàngale loolu nga waxoon nii li gën a dëgër ci dalil mooy àjjana ak safara yeneen yi waxoon nga sax bi bayti nawawi nga indi waaye fa la indi woon nga bayti bu al indi ci zilaalul janna mhm. tudd ko fa wane ne boroom xamul tudd nañ ko ci ijtihaad waaye dalil liñ gën a wone mooy ajjana ak safara mhm. moo jàpp ndax loolu mooy li nga saxal ba léegi wala masala bi ci amaat bu dee ajjana ak safara sax nag euh, seeni dalil moom wax dëgg yàlla bari na ndax bépp texte boo xam ne luy wax ne waa àjjana dañ fay sax wala waa sawara dañ fay sax te texte yooyu dañu bari lool loola day saxal nag ajjana day sax xaalidiina fii moom foo ko fekk fu nekk xamal ne lool ab texte la buy àtte ne sawara day sax ba faaw ajana day sax ba faaw dëgg la yooyu ñu tudd nag am na am na xilaaf ndax dëgg la am na texte yu ci ñëw sax nag waaye xilaaf ba la ko indi mooy xadis yooye ñi ko wéral ak ñi ko wéralut lenn ci ay may dañ ne xadis yu wér la am ci ñoom yoo xam ne dañ ne yu wérut la moo tax euh, dëgg-dëgg buñ ko dee seet dañuy wax ne la gën a maandu la gën a maandu mooy yemale ko ci àjjana ak sawar